saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Bombardier le B52 ma yëkkati ay kàddoom daal di koy teg ca kaw le double roi des arènes xëy na wax ci CNG wax ci carrière am wax ci làmb yi ba mu njëkkee ca CNG la moo xam le mooy état bi dafa war a foqati CNG bi ci loxoy président Alioune Sarr daal di koy dénk ñeneen guddi yi bu ñuy wax crise ci arène bi du ñenn ñu ko waral ñu dul CNG deltu gi làmb ji deltu ginnaaw du kenn ku ko waral ku dul CNG làmb ji doon wax naan day soox waaye day ramte buñ moytu dana jéggi frein làmb ji bu ci loxoy CNG bi bu nekk ci jéggi frein la lu nekkoon aada ak cosaan ci làmb ji CNG jëlee na ko fi mbooleem lu nekkoon culture ak ambiance ci lamb ji CNG jëlee na ko fi sottee ko butelu 10 litre taal safara wala indi sab ànd cuuraay wala indi sab fourne loolee jëlee nañ ko fi beneen ba mooy ci wàllu recours yi na ci CNG di doxale du dëgg du yoon booy bind recours danga cay boole 25 000 francs door ko dugal donte 25 000 bëriwut waaye bu recours ba jàppee yow kenn du la remboursé te li nekkoon yoon mooy boo dugalee 25 combat gënta for te mbooleem kuréel yooyu amul kenn ku ci exiger sportif mu arrêté ci 35 ans wala ci 45 ans rax ca dolli ne président Alioune moom def na fi lu ëpp ñaar fukki at ak juróom moom président Alioune sax yàgg na fi te xam na ne jot na pour mu dem noppalu ci rax ca dolli moom Bombardier ne sama tekki ngémb moom wóor na ma ne yàggatul saison ren bii bu ma ci bëréewut mooy bàyyi naa lam bu ma bëréewut ci saison bi am Papa Thierno Ka ci chargé de communication bu CNG moom mi nee génn na ca ba mu set wecc moom Babacar Seck la mu xam le mooy sama wér-gi-yaram moo ma mayut ma continuer bi leen ndombol tànk Thierno Ka ma ma ko joxoon jébbal naa ko ko bu dee Cheikh Tidiane Ndiaye ma nekkoon premier vice président chargé de la lutte avec frappe moom it génn na ba mu set wecc ñoom ba ñu génnee waxuñu li leen génne waaye nee seeni mbiri bopp la bu ñu jàllee ca combat yi a moom la ko ëppe muy doole loolee la ko wan keroog arbitre dafa sifflé mu ne ko tarus jàpp ko weñ ko ànd ak moom ci suuf foofee combat spécial ba diggante petit l'enfant bu yoof la woon ak far bu jar bu parcelle mbooloo petit l'enfant moom i dafa woon boppam far bu jar daan ko jël bu rëy ñaari combat ya parcelle mbooloo amoon yépp dañu ko perte ñoo doon bëre spécial ba doon bëre grand combat ba waaye ñaari yépp dañu ko perte bu ñu jàllee ca jët li ma perte ci kanamu 14 technique 2 moo daan pabre boobu yëmbal marin bu nu jàllee ca lit sans frappe démb ci Adrien Senghor caaka fay mooy dicté lu am foofee démb ci Adrien Senghor champion yaa nga fa woon kii di booy fay ngel jonn libidoor bu ngunjaan ak zaal bu ndengeleer Mamadou Gaskel jàmme duudu saane zaal bu ñoo joor caaka fay ténor yooyu yëpp a nga fa woon foofee caaka fay Elimane Diouf la daan final jërë ngeen jëf mbokk yi li ma nekkoon ci ëtt